ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci juróom fukk ak juróom-ñaar cas contact mooy ñu jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew mooy maanaam import importé waaye am nañ ci téeméer ak juróom fukk ak juróom ñi nga xam ne ñoom la tuddee cas communautaire cas communautaire yu nag seen lim ni la tëddee ci ndakaaru ak li ko wër am nañ ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ñooñu ñu ngi nii lañ tëddee ci gox yi may waaj a lim juróom-ñeent ci Mariste juróom-ñett ci Yoff juróom ci Wokam ak Pikine juróom ci Wokam ñeent ci Dakar Plateau Jëppal ak Ngor ñett ci Almadi Mermoz Sacré-Cœur Diamniadio ak Guédiawaye ñaar ci Sicap Karak Ouest Foire Parcelles Assainies ak Sacré-Cœur 3 benn ci Gibraltar Fann Résidence Fanop Castor Waguñaay Liberté 6 Cité Horizon Cité Apexi Cité Soprim Keur Massar Cap des Biches Zac Mbao Thiaroye Niague Tivaouane ak Bambilor ci région yi am nañ ci juróom-benn fukk ak juróom-ñett te seen lim nii la tëddee fukk ak juróom-ñaar ci Saint-Louis ak juróom-benn ci Mbour juróom ci Saly ak Xombol ñeent ci Thiès ñett ci Mexe ñaar ci Ngaparou Richard Toll Touba Kaolack ak Kolda benn ci Passy Sédhiou Daara Diofior Kaffrine Kébémer Louga ak Matam ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ci malade yi entré woon hôpital wala ak ñi ñi nga xam ne dañoo tëddoon dañ leen doon topp ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu jël génn bu ci yàlla ande juróom fukk ak ñetti malade ñoo nekk réanimation juróom-ñetti malade ñoo jot a ñàkk ñoo ñàkk seen bakkan bu su démb dibéer ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février bi ñu génn ni ñeneen ñi des hôpital ak ñi topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak ñeent ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak ñaar ñoo xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak juróom-ñeent ak téeméer ak juróom-benn fukk ak benn wér nañ ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ñàkk seen bakkan mu des ñeent junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ci lalu hôpital yi ak malade yi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla xare leen ajana di ñaanal ñoo ñu des hôpital ak malade yi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi yàlla may leen wér ba ñu génn ak jàmm fàttali leen ko bi euh, campagne de vaccination mi nga xam ne moom la ñu jagleel askan wi ci mbiru biirum euh, ci mbirum mbas mi tàmbalee ba léegi jot nañu ñàkk ñaar fukki junni ak juróom-ñaar ak fukk ak juróom-ñett ci doomu aadama ci Sénégal yëpp ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaan askan wi ñu gën a topp digle yi muy fàttali bés bu nekk di leen wax na ngeen aar seen bopp aar seen njaboot aarale askan bi di bàyyi xel ci mbir yi di sol seen i ni mu waree masque dafa war a muur gémmiñ ak bakkan di raxas seen loxo saa su nekk di jëfandikoo ndox ak saabu wala gel yu ànd ak qualité di teel a dem dispensaire wala hôpital wala di jokkoo ak seeni i docteur su fekkee ne yaram bi dafa xaw a ñi nga xam ne tamit dañ leen a tànn pour ñu war a ñàkku ci mbas mi nañu euh, jokkoo ak seen i docteur wala dem ci euh, bërëbu fajukaay bi leen gën a jege ngir ñu mun a jot ci vaccin yi ci ñàkk yi maanaam ci anam niñ ko bëggee ak ni ko agent de santé yi tëralee ci biir gox yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm